ci réew ak bitim réew waa li neexul ci wasaare sarax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Gaston Mbengue la Don King ma yëkkati ay kàddu daal di koy jagleel ca avenir u làmb ja yëkkati ay kàddu wax ci carrière la ko làmb teg j'étais à deux doigts de la ruine làmb tuuti kon tey mu loo ma demoon naa man Gaston Mbengue ba presque ma jeexal tàkk yoratuma dërëm bu ma yox-yoxi woon tuuti rek ci ñaan ak yelwaan laay mujjee boru million millions yoroon naa ko te làmb ma ko teg kase yu ëpp yi ñuy fay mbër yi ba làmb yi bëgg a yàquli jiig njaag maay njaag waaye mbër yi ci seen i jëmmi bopp ñoo commencé rey seenu business je principal responsable de la flambée des kase loolee la xamle bu kase yi tollee fii ba ñépp di jooy fu làmb yi jëm bu kenn joxoñ kenn baaraamu tuuma nañ ma ko joxoñ man Gaston la mais ku dem ba xamatoo fa nga jëm da ngay dellu fa nga jóge woon man bi may bàyyi làmb rek maa ngeeg boru 700 millions de francs CFA samay titre foncier samay bien lépp dama koo hypothéqué woon ca banque ya maanaam sama alal gépp dama koo tayle woon ba ma fayee bor yi jotaat ci sama alal laaj ko ca perpévi moom Gaston Mbengue mu ne bu leen ko tudd amul njariñ ñun waa IACOM ca combat diggante Modou Lo ñëw na waaye xanaa kay bi ñuy wax daa yokku perte ga moom Gaston rax ca doole ne Moustapha Diop bi weesu diggante Eumeu Sène ak Modou Lo boo moytuwul perte na lu ci 150 millions perpévi amul njëriñ bu leen ko tudd kuy responsable kase yu bëri ñuy fay mbëri mu bu leen ko jiiñ kenn man Gaston la waaye nag ku ndomin rey sa maam boo gisee lu ñuul dawal man Gaston je ne sacrifierai plus ma famille pour de simples lutteurs xalaatatuma sacrifier sama fami ngir làmb du ma sacrifier sama famille ngir ay mbër buñ jàllee ca choc de déclassement ba doon am ca Iba Mar Diop diggante Mama Lamine ak Jokkel foofu gonek lan saar gi dafa woon dooleem gone kër Masaar mbooloo ga Maama Lamine Tabaas et terrasse Jokkel loolee la sunu lamb xamle première journée Fallou Ndiaye le premier décembre ca Iba Mar Diop noonee la mujje lay rapide moo daan xës dadi Karbala daan Siteu 2 Boy Fissel daan Sekk Ndaanaan Lat Dior daan Unca Pulum Junior daan Kamal Junior Trompeur 2 daan Bekaay bu Sanjambur Diwaan Mor Fadam daan Dokki bu Dóor Dóoraat Petit Baye Fall daan Modou Yacine Boubou Diom daa ci système journée ba ca Adrien Senghor foofee Mamadou Diouf ak Saliou Diouf ñoo fa woote woon buñ jàllee ca Passy foofee waa Waaro production ñoo fa nekkoon foofee mise ba ngel jonn moo ko jël ci kanamu Sanderep bu dee démb ca Joal Fadiouth ca waa production foofee Pakala moo imposé ci kaw Papa Gueye ma daan ko jël bu amul benn werante feneen fa ñu jëm mooy ca Muñaa production journal ba xamle ne taxawal na combat bu neex diggante jegaan ak ci ay seconde ci ay simili yu néew la koy taf tafee woon ko boppam Pape Ndoye xamal ko ne ko maa lay attaqué maa lay dóor maa lay daan journal ba xam le ne bu dee démb daal Maama Lamine attaqué na Jokal dóor na ko daan na ko première choc de déclenchement bi noonee la mujjee Maama Lamine daan Jokal jël bu amul benn werante jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën ci ëtt yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah Rahuprod présente l'événement deuxième édition du Festi Dakar, Rahu Prod vous offre une première mondiale. En exclusivité à Dakar, Gims et Dadju, le samedi 21 décembre, sur l'esplanade du Musée des Civilisations, réunis pour un moment d'exception.